mbokki réew mi mbokki internet yi bàyyi xel MPROD TV yi mbokk yi tey le grand maître saltigué la ñu fekk si muy Cheikh Waly Ndiaye borom guy gi guy gu doy gi guy gi nga xamante ni tey sénégalais yu bëree bëree bëree bëree bëri ñi ngi naan guy ga ñafa dem ñoo rawagul ñafa demagul yaakaar naa borom guy ga moo nekk nii muy Cheikh Waly muy kilifa di ñaan kotu yàlla politique Sénégal fi mu toll tey euh, am na leader bu mu àndal mais danañ ko laaj tey ban leader la jàpp ne mooy jiite suñu réew mi 2024 entre Sonko Karim ak Khalifa waaye ak ki nga xamante ne mooy président Macky Sall li xew ci réew mi danañ ko waxtaanee waaye li xew ci làmb yi fan yi gis nañ ne décédé yi ak dee yi bëri na jëm ci ñi nga xamante ni moom mooy ah, ndaw ñi rawatina ci sëri sénégalais yi. gis nañ ndaw lu fi wàññi ko tey tax na ñu bëree bëree bëri tey tiit nañ surtout acteurs yi ak actrices yi Cheikh Waly dañ lay bàyyi nga nuyoog askan wi ñu soog a xoos dugg ci dëgg-dëggi waxtaan wi. alhamdulilahi rabbil alamin ginnaaw sant yàlla ak julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa ñu ngi am mbégte ñu ngi am kontaante bu baax ci ñëw bi ngeen ñëwaat fii ci sama kër. Euh, interview ma ñaan yàlla lépp lu ñu fiy wax rek na nekk njëriñ mu ñeexal askanu Sénégal ak àdduna bi yëpp macha allah. Mhm. alaaji dégg maa ngi lay nuyu di nuyu suñ mbokk internet di ñuy teewlu yëpp macha allah. Ah, saltige am na wax joo fi waxoon daaw ah, nga ne cat sénégalais yi dem nañ ba boole ko seen dund te cat rek moo jar a moytu nga ne cat moo gën a garaaw sax liggéey nga waxoon fi ba alerte ne ñi nekk ci Facebook bi ak TikTok bi ak Instagram bi rawatina acteur yi ak actrices yi nañu moytandiku bu baax a baax a baax ndax at mi ñuy dugg ku ci amul kaaraange moytu cat di nga am problème gis nañ jamono ji surtout ndaw ñi ñu ngi wàññeeku rek tey ah, la nga waxoon daa mel ne wax ja amatina. alhamdulilah rabbil alamin cat moom dégg nit ñi dañ koy sàgganee. waaye li ma waxoon moo gën a garaaw liggéey moo gën a garaaw rab ci doomu aadama mm-hmm. yonent bi nee na sama xeet su nekkee ñett nit dañ cee wàññeeku mm-hmm. ñaar ñi cat moom moo leen yóbbu mm-hmm. te cat dafay topp nit ba ci biir bàmmeel léegi nag li nit ñi xewal mooy gis leen ma nekk ci réseau sociaux dugal ay photo dugal ay TikTok je film lu nekk rek soo koy def rek war nga am protection d'abord mhm. parce que bët bi lay xool xamoo ban bët la làmmiñ bi lay tudd xamoo ban làmmiñ la mhm. yéene bi lay yéene xamoo ban yéene la te am na bët bu bon boo xam ne su tegoo sa sa sa jëmm ji rek semaine mën na laa bañ a fekk ci kaw suuf tooke la am na làmmeñ boo xam ne su la tuddoo rek sa lépp yëpp dafay yàqu kon boo doomu aadama suy dundu dafa war a dox ci digganteem ak cap mooy mu am kaaraange balaa muy feeñ ci réseau sociaux balaa muy feeñ fenn soo gisee léegi ñiy génn ci réseaux sociaux yëpp di wàññeeku di jeekatu film yeeg yëpp da ngay gis ne ñiy fréquenté nit ñi daal bëgg siiw taxin bi ñu war a am kaaraange gi ñu war a am duñ am te genn wàll gi yëpp cat bi daf leen di gàllankoor ba ñenn ñu mu leen di yóbbu macha allah kon daal maa ngi leen di dénk ñu defar seen yaram nit daal fu mu toll dafa war a protéger yaramam defar yaramam ba cat googu du mën ci moom dara macha allah. mais saltige ku bëgg mucc ci cat lan moo ci gën a gaaw. alhamdulilahi rabbil alamin loolu moom am na luñ koy tojalee comme li may wax rek ñun ay doomu séeréer lañ séeréer suñ koy jàngal xam-xam xeex lañ koy njëkk a jàngal dama koy faral di wax pour tojal cat nag dañu ngay mel ni ñun dañuy yëkkati veeru verre ataaya bii rek wala veru boisson bi bàyyi ko ci karo bi mu toj ci saasi am na loo xam ne suñ la ko sangatee ci saasi rek cat boobu dafay dëñ baneen bi danañ la jox loo xam ne cat dootut mën ci yow dootut mën ci yow dara cat jàpp na nit alaaji dégg ba munta am dara cat jàpp na nit mu mel ni mu war a mel di jigéen munta am jëkkër cat jàpp na nit ba loo dajale sax pour ne danaa tabax wala loo dajalee nga ne danaa jënd oto wala dinaa taxawal projet sàngam balaa loolu di mat sax nga am problème bu taxaw nga dugal ko ci wala sa njaboot am problème nga dugal ko ci dara daray të kon boog ñun noonu lañ mel ci cat am nañ ci cangat yoo xam ne ci njaq séeréer yi suñ la ko sangatee macha allah yàlla dina la dimbale ci wàllu cat boobu ah, tey bëgg naa ñu dugg ci li séeréer si di faral di def muy xoy di wax année bi ni muy demee ah, ñu gis ne sax daaw ah, bi nawet bi teroo am na ay wax yoo ci waxoon wax ja tamit gis nañ ne ba tey am na tey xooy man duma ko méngale ak seet seet garaaw na trop seet baax na seet leer na mais xooy jàpp naa ne moo gën a garaaw parce que année bi lañuy ñuy résumé wax ci li nga xamante ni moo ci war a xew te tey bokk nga ci ñi nga xamante ni takkal nañ leen garaat ci wàllum xooy kon gisaanekat bu mag bi tey euh, Sénégal tey li nga fi gis tey yaakaar naa euh, bëri na te yéeme na kon ñu xuus ci diggante xooy ak seet. waaw alhamdulilahi rabbil alamin xooy moom mbiru mbiru cosaan la loolu nag askanu séeréer la ko yàlla jagleel dañuy dugg suñ duggee wax naa la fan yële ci wàllu nawet laañ nga ma ci moom lu ma la waxoon ci ay sarax ci ndox mi yaakaar naa fi mu nekk nii ndox mi bëri na macha allah yàlla nañu jik ñu loo ko euh, xooy soo duggee da ngay xool li nga xam ne waxoon nañ ko gis nañ ko ci at mi yëpp fànkal la sarax yi nga xam ne moom nga war a def pour nga mucc mm. doomu aadama yi nag dañoo sàggan léeg-léeg nit wax la nga wax ko sarax wala nga xooy génn wax sarax ci ci réew mi ñu sàgganee ko mu gàllankoor loolu sarax amul lu mu mënta lu mu lu mu mënta dévier mm. alhamdulilah lañ waxoon ci nawet bi gis nañ ko tey dana dana dana barke waaye tamit di wax rek ne sarax yi nañ koy gën di yokku sarax yu bëri tamit suñ ko duñ ko wax ci télé ñitu mm-hmm. nguur yeeg ñi nga xam ne ñoo ŋànk dëkk bi ñoom lañ koy wax personnellement parce que ñoo war a sàmm dëkk bi mm-hmm. su boobaa coow dina dal dana am ci dëkk bi deret du du tuuru ci dëkk bi mm-hmm. élection yeeg lépp lu mënta xew suñ kanam rek jàmm da ci am xooy daal ak seet Euh, xooy lu lu garaaw la waaye damay wax ne bu ko nit ñi di sàgganee muy seet wala muy xooy yonent bi nee na su ngeen di dugg ci mbir na ngeen ko seet kon du ngeen ci am rëccu nit soo ñëwee da ngay seet nga xool nit mun naa am ne benn bekk suukar bii rek moom moo téye sa mbir suñ la seetalee wax la ko rek sa giirug dund nga ubbeeku ko am na koo xam ne ñetti mburu moo téye mburum am na koo xam ne cata ko téye nga sangat ko mu dañ am na koo xam ne rab la am na koo xam ne nàngam kon boog ñaar yooyu yëpp xaw nañoo xaw nañoo niru mais tamit lu baax la ci dund doomu macha allah ah, wàllum euh, ubbi nit ci alal ban façon nga ci liggéey parce que gis nañ ne toujours ñu bëree bëree bëree jàppale nga leen tey ba ñu bëri alal ñii jàppale nga leen ba ñu euh, riche te lépp yaa nga koy defee ca guy ga guy ga koo ci sampal kenn du ko yàqal waaye koo ci sampal alal dana ko yomb. waaw guy googu guy cosaan la wax naa la ne la amul njiitu réew buñ ci sangut guy la goo xam ne su ma weertoon boot danaa la wax buur ay fakk tën fakk dënn yoo xam ne sangu na ci. samp nañ leen ci macha allah guy la goo xam ne liñ ciy liggéey am na ci lu ñuy wax guy gu boot daqaar ci garab gi la bokk. dañ koy euh, booleeg njaq yi xambal ko nit suñ la ko sangee man damay wax ne suñ la ko sangee ren ba déwén te amoo loo ubbeekoo loo taxawalee dara wala loo téye kër mm-hmm. ñëwal man nga wax ak man. su dee daa am loo ma joxoon ma delloo la ko ànd ak loolu yëpp kenn musta gis ne ma ne ko fay ma nangam ci ñaan eh, kon boog ubbeeku doomu aadama da ko war a def soo ko deful daanaka sa dund gi niil na nit ñaa ngi jàng nit ñaa ngi am métier nga mel ni nga war a mel munoo am dara kii jóge fee benn at ñaari at rek lépp dajee ci loxoom parce que suuf bu sutantee dañ koo jal yaram dafa war a neex kon boog ubbeeku foofu lañ ci tollu ci mbiru ceddo gi ak ci mbiru xamb gi ak ci mbiru guy googu nga yox macha allah. Ah, sëy sëñ bi ah, président Macky Sall ah, ñu bëri ne nañ séeréer si ñoo ko téel ay tànkam maanaam ñoom ñoo ko ngemb ba tax na toujours dañuy gis ne bu Sonko waree def déclaration rek du fekk président ci dëkk bi. seetlu boobu nag Sénégal yëpp am nañu ko ah, tey bu réew mi dee tàkk sax du ko fekk ci Sénégal am ñenn ñu ne ma ñenn ci salle liggéey ñoo ko ne na génn euh, réew mi bu fekkee déclaration day am tegtal boobu tamit yaakaar naa tegtal bu yéeme la. waaw alhamdulilah kum nga tegtal moom euh, fi lañ ko fekk tegtal dafay am am na loo xam ne su waree am euh, gàllaaj dafay def loolu mun na la ko may. ba nga xam ne su waree am mu war laa lor doo ko fa du la fa fekk wala dana dem ba ñëw nga door di nga door di ñëw loolu yëpp nag ay tegtal la li ngay wax ci président du ñàkk moo am tegtal yooyu am na nit nu sa yaram di man maa ngi gàllaaj yoo xam ne mbañ gàccee la tudd doo ko jëfandikoo mukk di am gàcc ci sa kanam noonu mm-hmm. moo xam ne bëgguma sax di ko wax ci ci ci ci ci télévision wala ci internet mm-hmm. kon boog loolu dafa am doomu aadama kaaraange daal mooy lépp alaaji dégg mm-hmm. soo ko amee daal sa noon bu la fexelee fexe bi du jàpp suñ la naree toroxal toroxal boobu du la fa fekk mm-hmm. su musiba naree am da nga dem mu am wala mu am ba pare te nga door di ñëw mm-hmm. loolu yëpp daal ay tegtal la macha allah. ayco numéro téléphone Cheikh Waly Ndiaye mi ngi noonu affiché képp ku ko ci woo rek di nga ko jot Cheikh Waly euh, am na ndomba gooy liggéey mu nekk ndomba goo xamante ni euh, ndomba gi euh, liñ ko tuddee sax yenn ci muur-muur yi nga ko liggéeyal dañ ma naan ndomba gi li ci cheikh bi wax sax li muy def moo ëpp loolu parce que ndomba gi boo ko takkee polis du la fréquenté soo takkee ndomba gi doo dee ci accident soo ko takkee musiba ak balaa doo ko fekkee mais ñoom dañuy sentir ne bu ñu takkee ndomba gi pour sax ñu feebar lu jafe lay doon. waaw alhamdulilah loolu gàllaaj gu ñuul la. wax naa la ne la ñun ay doomu séeréer lañ lépp lu ñuy liggéey dañ koy liggéey ci garab. ak sunguf ak xob comme ni ko nit ñi di defee léegi dajale sunguf yeeg yooyu ci marché yi di jox nit ñi mu leen di um mu leen di lor ñun doxuñ ci ba googu nag ci garab yooyu lañ koy xambee suñ la ko joxee sa giirub dundu gàllankoor moom tàggoo nga ak moom lépp loo jóg uuti dana la yomb da nga yëkkatiku fa nga nekk doo fa ñee kenn waaye nit ñi danañ la ñee te doo ñee sa benn morom muy ci wàllu alal muy ci wàllu wërsëg muy ci wàllu kaaraange muy ci wàllu dem kaso muy ci wàllu dajeek police wala dajeek koo xam ne daf laa war a sonal mm-hmm. loolu moom nit ñi miinee nañ ñu ko lu bari macha allah nga xam ne bari na luñ koy liggéeyal waa extérieur rek loolu macha allah. Mm-hmm. ah tey seex bi mbirum këyit ñu bari dañuy wax naan faa nga liggéey ci ak ku yor ay jinne man nag mosuma dégg nga ne ay jinne nga yor mais ñu ngay liggéeyal ci papier ak séjour damay gis ne liggéey bi gaaw lool ñu jot seen i papier te déggoon naa mbirum këyit ak papier jinne moo ci gën a gaaw yaa ngi jëflante ak nit ñi di ci am résultat te dégguma nga utiliser jinne mais ban méthode nga utiliser ba mbirum kayit yooyu di gaaw. alhamdulilah ñun ay doomu séeréer lañ fu ñu toll doomu séeréer dafay xam rab dafay xam jinne ni nit ñi foog jinneek rab léegi demeewul noonu dégg ñi ñuy dajale ñuy yuuxu naan dama amee ay jinne di yuuxu naan rabama daane loolu ay tricage la. loolu nekkul xam-xam. xam-xam mooy li nga am ci baatin nga nëbb ko. man ñaata nit lay faj ci ñoo xam ne suñ leen di yenu fii dañuy yuux mhm. suñuy dem ñu doxal seen bopp mosuma ko wane ci télévision parce que sutura moom moo tax mhm. loolu mooy xam-xam léeg-léeg sa gis sëriñ bu toog naan di di di di théâtre naan day dàq jinne jeeg kii ki may may toog yooyu yooyu wax dëgg yàlla dafa sax dafa sax terre à dafa terre à terre su la ko yàlla xam loo ak rab mm-hmm. du looy wane télévision wala loo koy waxtaanee mm-hmm. mais alhamdulilah ba ñun tamit ku ñëw ci yow dañuy jëflanteeg yow ci wàllu rawaan yooyu ci wàllu kayit yooyu nga gis parce que am na loo xam ne rawaan rek moo ko mën a joxe ci lu gaaw mm-hmm. dem dëkk jàmbur du caaxaan nga war faa liggéey war faa am kayit ku nekk xam na tubaab ni mel ci nit ku ñuul su boobaa tamit am na nooy jëflanteeg rawaan am lu ñu la yónnee mm-hmm. soo ko jëfandikoo ay fan rek ak suufu dëkk bi muy neex muy naqat yàlla dana la may kayit am na ñoo xam ne ci sa émission bi passé mm-hmm. ci lañ ma gis te jëflante nañ ci loolu mm-hmm. ñii ñu ngi procédure ñu ngi ñu ngi leen di convoqué ñu nekk ci procédure yi ñii seen këyit tagoon na oo nañ leen na jox nañ leen ko macha allah. Cheikh Waly ci boole boole boo ko tuddee bokk na ci jëkkër ak jabar mais boole dafa yaatu bokk na ci entreprise ak ay nit ñu bokk ay liggéey yenn sénégal yi am na ñu ko xamee nopp mais boole ay nit ba kenn du mën ci ñoom dara ah, mbirum nopp tey bëgg naa nga dugg ci tamit andi ciy leer alhamdulilah nopp mooy mooy boole ay diggante soo déggee boole ay diggante mën na nekk ñaar ñu bëggante wala sa patron nga bëgg ko wala sa mbokk wala sa njaboot loolu euh, yàlla daf ñu cee may walla ay fan yii rek yàggut dara am na koo xam ne dafa réeru ay njabootam ci Europe mënul gis xale yi daf ñoo dégg ñu jox ko tegtal même pas ñetti fan doomam yi ñëw ñëw fekk si ko loolu nag moom mooy boole loolu dañ koy def noob su dee wàllu jëkkër ak jabar nag damay xool su nekkee sëy mun na cee am te caaxaan taxut jóg moom laneen la ñuy wax waaye su ma jëlee ku jigéen ki wala ku góor ki seen tur yi am lu ma ciy liggéey ci wàllu xamb yi ci wàllu reen yi mm-hmm. ay fan ku jigéen ki su dee mooy sàkku dana ko ku góor ki dana ko topp comme xaj mm-hmm. ku góor ki su dee mooy sàkku ku jigéen ki dana ko topp comme xaj macha allah mais bu fekkee ne jigéen gu bëgg jëkkër la nag waaw loolu yëpp mooy li ma la wax rek léegi loolu bari na jigéen ñi suñ la bëggee nga am njëriñ dañuy ñëw ñu yeew la léeg nga gis góor dem takk jigéen jabar xamul sax lu ko ko takkloo su ko takkee pare la koy doote xam loolu yëpp ñaanlu la am na loo xam ne soo ñëwee ñu xool ne sëy rek moo la tax a jóg am na loo xam suñ la ko defalee neex naqat ay fan waa dana la takk te su la gisul du am jàmm macha allah. Mm-hmm. tey mbirum néew kàttan bokk na ci li euh, góor ñi góor gu tële lan moo gën a gaaw ci dimbali ko ba muy seq soxnaam soxnaam di gaaw a soxnaam di jot boppam. alhamdulilah wax nañ la ñun liñ ciy joxe soo ko jëfandikoo soo dundee téeméeri at terewul da nga am kàttan meluñ mm-hmm. ni comme ni ko nit ñi di dafay jox la loo xam ne benn fan ñaari fan ñett. nga mën dara après dootoo mën ñun dañ lay faj nga wér ñu ne la demal sa yoon loolu nag garab la gu wér goo xam ne duwut lu weex duwut dara dañ la koy jox nga jëfandikoo ko traitement bi matul sax juróomi fan nga gis sa bopp macha allah te dootul dem tey xam-xamu euh, carte waaye xam-xamu pari foot waaye xam-xamu xbet tey ñu bëri ñu ngi tedd jaarale ko ci naar bi ñii dañuy jouer xbet ñii di jouer pari foot kon loolu seen liggéey la seen teraanga la ñu ngi ciy investir mais dégg naa ne jàpp mbirum football dafa nekk loo xamante nii bu fekkee yenn xeetu seet yu ndaw yi nga man rek mënoo jàpp football parce que football ak làmb ñoo day changer chaque instant lan moom gaaw ci jàpp escort. waa loolu yëpp mbiru rawaan la rek lu ñuy nëbal la. Mhm. loolu la ñuy wax ne da ngay jàpp mbir. nga laxal ko loolu ci ay mbiri baatin la ak ci mbiri xamb yi. Mhm. nga wax nit mu dem pari foot. ki yegg kii nga ne ko lii jëlal bii jëlal bii jëlal bi mm-hmm. te su demee noonu lay demee mm-hmm. macha allah bëri na ñu may jëflanteel ci loolu te te ñu ngi ciy am ñu ngi ciy am ay résultats mm-hmm. mu ngi mel ni mbiri làmb ñaar ñii mën nañoo taxaw ba dem ba ci benn géew bi kenn ki nangu nangam loolu yëpp mbiru xëccoo la loolu nag rawaan da cee gaaw wax naa la ñun ay doomu ay doomu séeréer lañ te séeréer suñ koy jàngal xam-xam xeex lañ koy njëkk a jàngal lépp lu ñuy liggéey ci loolu rek ci xamb yi lañ koy liggéey ak ci wàllu ceddo gi te ñu bëri ñu ngi ciy am résultat bi ñu ci soxla ci ñun macha allah. Ah, dégg naa nag li nga gën a mën bokk na ci mbirum fay coow coow lu mu rëy rëy rëy rëy mën nga koo fay ci ay bis ba coow loolee kenn dootu ko tuddati bëri na coow yoo xamante ni tey fay nga ko ci dëkk bi. waaw alhamdulilah waaw loolu tamit mu ngi noonu dañuy liggéey la gas bam suul. suuf siñ koy suul duma ko wax def ko ci ndox miñ koy def duma ko wax sotteeku ko coow la dana fay këmbax su fekkee ne ku la bëgg a sonal la su insister daa nga dégg problème am moom ci moom da nga dégg da nga dégg coowam kon boog loolu yëpp ci gàllaaj yu ñuul yi nga xam ne dañ koy liggéey la ci wàllu ceddo gi macha allah. Ah, cheikh bi la ngay tàggatoo ak lay wax askan wi lay suivre ci MPROD TV. alhamdulilah rabbil alamin li may wax rek mooy na askan bi delloo seen xel sant yàlla dégg mbiri sëriñ bari na. waaye yonent bi moo nañu ñaan yàlla moo nañ ñaan leen ma may leen sëriñ du musa yàqu ñi yàlla doon baaxal ba tey ñu ngi baax sëriñ yi nañ nekk nit vraiment seen comportement war nañ ko seetaat mm-hmm. ci réseaux sociaux yi ak ci réew mi mm-hmm. sëriñ jàngale lañ ko xamee ak ñaan yàlla mm-hmm. sëriñ du wut ay bruit du wut ay xasante du wut ay ut buzz lu nekk rek daanaka léegi sëriñ saa ciy dugg ñii ñaan lu sonn nañ ku la oo benn baat bi la lay wax sonn naa ci lii sonn naa ci lii sonn naa ci lii kon nañ seetaat suñ bopp message boobu rek lay lay lancé di wax ne ñii ñaanlu tamit buñ të doomu aadama tàng yaa ngi ci ñoon ñaanlul ngaam am kaaraange ñaanlul nga am ubbeeku ñii yàqalaate dañuy bëri dégg chaque jour ma dégg nit ñëw ne ma liggéeyal ma nit wala nit ne ma sànkal ma nit wala simple ma nit mm. kon boog nit ku ñëpp buñ buñ bàyyi seen bopp ñu ngi ñaan yàlla lépp lu ñu fi wax mu nekk njëriñ mu ñeexal ñu. wasalaamaaleykum wa rahmatullah. ayca mbokk yi dégg ngeen waxtaan wu am solo wi Cheikh Waly Ndiaye le grand maître saltige waxtaan mu nekk waxtaan woo xamante ni njëriñ la nekk waxtaan woo xamante ni ngëneel la ayca numéro téléphone yaa ngi noonu affiché ci suuf écran bi képp ku ko ci woo rek di nga ko jot mbokk ñu doon topp dañu ñu ci improtive TV yàlla ngeen bëri jàmm ci daraja Muhammad Rasulullah